ñu ñëw ci point bi nga xam si ni moo lëmbe euh, réew mi lëmbe àdduna ji tënk ko ndar ko képp euh, ginnaaw bi nga xam si ni Omar ñu ñëwaat ci waxtaan wi diggante amaa bale ak Modou Lo euh, nga gis combat bi coow li bëri woon day taxaw ak du taxaw nga gis première sortie Modou ndax naka nga jàngatee loolu bi Modou Lo génnee jàkkaarloo ak li nga xam moom mooy presse bi. waaw maa ngi ñëwaat aussi di nuyuwaat suma waa koñ waa Daaru Rahman balaa may dugg si loolu di nuyu suma chef de quartier sunu papa manam fay. di nuyu tamit suma soxna Mariama di nuyu suma waa euh, coalition yi nga xam ni tamit dama nekk di liggéey ak ñoom suñu président Pape Ndiaga Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu suma frère saydi euh, di wax rek nii combat bi ngay wax noonu euh, dafa nekk combat boo xam ni yaa ngi ma ko doon laaj sanq komba bu doy waar la combat jànq la boo xam ni Modou Lo Ama Baldé gars yi dañ ko soxla woon bu baax mais sànq maa ngi lay wax ni la Modou Euh, bépp mbër boo xam ni toloo ngeen taay muy xaw ngeen neexoo ci taxawaay boo deful ndànk rek bu ngeen bëree mën ngeen mën nga am jafe-jafe ci moom. bëgg fi président Omar mooy móotloo ban combat nga njëkk si daan Modou ban combat Modou Lo nga njëkk si daan waa man moo Modou xam a man euh, Modou euh, man sama sama mbër Mouhamed Ndaw Tyson la woon bi ngay xam ne sama waa ji man moom Moussa parce que suma yaay Mohamed Ndaw Tyson moom mu nekkoon mbërëm euh, moo tax Mohamed Ndaw Tyson man moo nekkoon sama mbër après Mohamed Ndaw Tyson euh, Yékini waaw Yékini tamit euh, sama mbër la mais Modou lu tax ma lu tax ma naw ko gëm ko muy Modou dafa tolloowul ak gaay yi ba pare sonal gaay yi yaa may dégg de Modou ne Modou Lo tax nga naw ko mooy dafa tolloowul ak gaay yi pare sonal gaay sonal gaay tey jii koo koo jox avance Modou Lo man maa la ko wax man Omar Diouf Modou Lo képp koo jox avance am du nelaw mook ko ay mbokkam képp ku lekk avance Modou Lo doo nelaw ndax Modou Lo dama euh, euh, dafa nekk mbër boo xam ni macha allah. dafa mën li muy def xarañ ci nag. mooy ban combat Modou Lo nga njëkk si daan Modou xam ne kii ah, buñ ko bàyyee xel ak bu buñ ko bàyyiwul xel champion lay doon. waaw Modou Lo euh, man combat bi nga xam ne tey jii donc dama lay wax rek combat bi nga xam ni moo tax ma gën a bàyyi Modou xel yàgg naa si ay combat am de mais dafa am benn combat boo xam ni euh, mooy contre Eumeu Sène ah. non bu njëkk bi. bi mu koy tegal 16 gis nga làmb jooju dañu dañu bëree bëree bëree bëree man leen ñu ni Eumeu seen dina daan Modou Lo man leen du ko daan boobu Eumeu seen xam nga mi ngi si mi ngi si diggu kiiwam waaw ku mu jàpp defar la affaire man leen du ko daan ñu ne ma la moo tax man leen instant yi nii nii nii nii may wax ak yéen ñu ne ma waaw télé bi de maa ngi toog sama kër sama soxnaak ñëpp a ngi toog man leen instant yi nii may wax ak yéen man leen Eumeu seen ci boppam mu ngi bëree mais amatul confiance ni moom dina dina dina dina daan parce que man damay am lecture bu may def en tant que sportif ci adversaire yi nga xam ne tey jii ñooy nekk di def di def combat di bëree moo Modou Lo moo ëppoon atu parce que te gis nga moo mujj daan moo ëppoon avantage par rapport ak Eumeu Sène parce que Eumeu dafa dem ba. Euh, gëmul gëmatul ni làmb ji lan moo tax muy yàgg nii kon na jeex te loolu moo ko daaneel parce que dafa bëggoon ñëw direct ak parce que warul def ak moom ak Modou benn temps bi parce que si temps boobu noonu si la Modou exploite exploité technique am daan ko ci Modou bi Eumeu seen di di ko jéem a jaay doole boo seetee mi ngi yootul mi ngi dugal loxoom. ku téye ngemb bi mu jàppee fi mu bëggoon jàpp ah mais sa waay bi mu ko weññee da ko tegal 16 tegal 16 boobu ñëpp la bett moo tax beneen bii ñii ñu mujjee bari nii bi Modou Lo di jël roi des bi bi arbitre bi sifflé Modou Lo bi mu téye bu nga boo xoolee combat bi Modou Lo mi ngi téye loxo main droite bi di léwtoo ak mais gos ñi ma toogal bu ñu fa toogoon tey ne leen bi muy def noonu di def nii. loxo bi laa leen di da koy dóor parce que boobu appel la doon def da ko doon cokkaas pour mu ñëw da doon def appel téye parce que xam na ni lu mu yàgg-yàgg Eumeu seen day ñëw moo tax mu doon léwtoo ak benn loxo di ko di ko def di ko def appel sawaay dafa ñëw rek mu dóor ko mu wàcc parce que loolu dafa xamoon ni Eumeu Sène lu mu yàgg-yàgg dina dina song waaw moo tax bi mu ko dóoree moom dóor bi moom ñëpp gis nañ fi mu mujje waaw kon loolu ay technique la yoo xam ni ak ay lecture yoo xam ñun en tant que ay amateuru làmb nekk ay président écurie dañ koy dañ koy gis te sax léeg sax duñ ko bëgg a wax moo tax yow boo gisee émission ma defoon ak yow avant président CNG bi ñu koy ñu koy fal moo tax nga dellusiwaat pour jëlaat ma parce que damaa waxoon loo xam ni ñëpp ci teg seen bët. coow li bëri ñu naan ma yow li nga wax ni foo ko teg. waaw moo tax nga dellusiwaat ni ma président Omar dama lay jëlaat parce que nit ñi. SBT Média lépp leeree. voilà fi la lépp lay leeree. waaw pour waral waxal ni nit ñi li tax émission bi ñëwaat parce que dafa am benn lecture lu ma la waxoon yow nga teg ci sa bët te loolu li tax ma waxoon ko du contre Tyson du contre euh, kii Keba Kanté du contre aussi ñi nga xam dañoo bëggoon mais dama def sama xalaat def sama lecture xam ni ñii ñuy wax ñëpp. du ñu yor CNG bi waaw ndax euh, tamit làmb wax dëgg yàlla dañoo soxla ñoo xam ne tamit ñoo ñu ay acteur làmb lañ mais nag dañoo soxla ñoo xam ne tey jii làmb ñu yóbbu ko fu sore sore sore ba ñu def ko fédération waaw ba ñu def ko fédération SBT Média la seen émission bi nga xam si ni mooy émission seetu mbër ñu dalal ki nga xam si ni moom mooy président Omar euh, Omar Diouf président écurie Daaru Gëm Sa Bopp euh, fii ci Tëngéej mais boo ngeen gisee ma que dafa am lu ma waxoon loo xam si ni macha allah ah, loo xam si ni dafa ma ko waxoon euh, donc mu amoon coow ñu teg suñu bët moo tax mu ñëwee fii mënu ma dem waxtaanewuñ combat bi nga xam ne moo lëmbi àdduna diggante Modou Lo Ama Baldé ginnaaw bi nga ñëwalee si Modou Lo tey boo ñu wax Ama Baldé ban combat nga ne kii buñ ko bàyyee xel ak buñ ko bàyyiwul xel champion lay waa Ama Baldé Ama balde moom euh, champion la waaw mu ngi nekk aussi euh, euh, xale boo xam ni dañ koy ñaanal rek moom aussi ndax mi ngi teg tànkam foo xam ni tamit bu ko teggiwul tamit mën na nekk roi des arènes waaw mën na teg tànkam foo xam mi ngi teg tànkam foo xam bu ko teggiwul mun na nekk roi des arènes mais nag yàlla dafa def ni maas Ama Baldé am na combat de non ñëw ci am na combat ban combat nga njëkk si daan Ama Baldé xam ne kii mbër la. waaw Ama Baldé euh, maa ko seetaan euh, contre euh, Ama Baldé ak pour wax Ama kii contre kan sax contre kan laa mujjee seetaan contre même seen seen tournoi bi sax mën naa si wax tournoi bi nga xam ne tey jii moom moo ko jëloon bu ñoom moom la woon Tapha Tine ak guy gi waaw foofu rek boo gisee foofu rek nga xam ni Ama Baldé ndaanaan la ndax euh, man daan daan bi mu daan tafaatin laa xam ni Ama Baldé ku ne mën na la daan waaw kooku kon euh, nañ ko bàyyi xel bu baax daal te xam ni euh, couronne bi mën na mën na nekk si loxoom daal waaw loolu daal laa mën a wax ci Ama Baldé. ñu jëm si digganteem ak Modou Lo koo xam si ne bi mu ñëw ci làmb dañ ne woon guddul waaye gis nga macha allah fi mu agsi dem na ba ba xarañ dab ko ci biir làmb ndax Modou la andoon ci làmb ji dem ba si yàgg ñu ne ko roi des arènes waaye gis nga fa Ama Baldé de Falaye Baldé ñu naan ko wax sëllu ndaw nga dem ba tey ñu ne ko yëkk ah, def fi ay tàkkusaan yoo xam ci ni macha allah comme ni ko Modou defee ah, muy muy ñaari mbër yoo xam ci ni kenn ku nekk da am mënin tey boo ñu bu ma doon conseil Ama Baldé nii danaa ko wax ni ko euh, combat bi na indi xeex na xeex ak Modou bañ a bëre ndax bu bëreek moom rek ah toolu moom fii laa la ko waxee de bis bu bis bu jàppanteek Modou Lo ah yaakaar naa ni euh, bëre mën na fa génn te te te faveur bi ci boppam Modou laa koy jox. ci bëre bi waaw laay jox faveur. mais bu dee xeex bi bu ñu fekkee Ama Baldé dama ko doon conseillé man mu nekkoon sama lutteur dinaa ko wax ni ko kombaa bi ndax xeex bi ëpp bëre bi ndax euh, li tax may wax loolu Modou Lo nee naa la sànq képp koo xam ne tolloo na ak moom ci taay ak noo mënti toll mu dina la indil jafe-jafe waaw Modou euh, Modou képp ku mu tollool taay boo bëree moom mu indi la jafe-jafe Ama Baldé nag lu mu mën a indi mooy nax xeex ak Modou Lo. ndax ah, su ma déggee mooy euh, forum ci combat bi mooy xeex Modou forum ci combat bi mooy bëre. mooy contact bi jàppante bu nu jàppantee boobaa di nga gis bëre dina génn te faveur bi ci Modou Lo laa ko gisee parce que gis naa ni ni muy bëree yaakaar naa ne bus bu bu Ama Baldé champion la mais bu nu bu nu demee ci bëre moom. yaakaar naa ne man su may jox su may jox euh, faveur Modou Lo laay jox faveur ci bëre waaw bu dee nag xeex naa ak moom mën nañ xeex xeex bu metti boo xam ne moom aussi ama mën na si am mën na si am mën na si am kii moom laay jox faveur ci xeex bi. seenu ko ci xeex. dina am xeex dañuy xeex xeex bu metti ñoom ñaar waaw te bu ñu xeexee avantage wu Ama Baldé la. Omar li nga wax nii di nga ci wéet ak euh, di nga ci wéet de ndax amateur yu bëri xeex bi Modou lañ ko jox même ancien gloire yu bëri bi ma leen demee seeti xeex bi Modou lañ ko jox jël bëri bi jox ko Modou kan moo dàq dóor ci làmb xeex kan moo dàq xeex ci làmb ji waaw mais mais mais mais mais Malick Niang Malick Niang kan ma ko daax a xeex ci làmb ji Malick Niang ma ko daax xeex ci làmb mais ba mu ba mu oowee Ama Baldé ci xeex mais Ama daf ko dóor mu wàcc xam lan moo tax parce que xeexu mbedd lay xeex day xeex xeex boo xam ni xam nga xeex xeexu mbedd bokkul ak xeex bi nga xam ne da ngay toog ci say tànk te Ama xeex boobu lay xeex. day toog ci ay tànkam di dóor te ñett ñetti trois modes de frappe moo am te Ama day utiliser ñetti yépp xeex dafa am trois modes de frappe moo am ci dóor. direct direct dóor la direct mode de frappe la épercule moom la ñuy wax ronni ak crossé ñett nit mënul dóore neneen ñu dul ñett yooyu direct épercule ak crossé. ñett yëpp Ama da koy da koy utiliser moo tax day ëpp avantage ci xeex ak mbër bu mu jàkkaar lool man maa la wax lii. est-ce que yow fi ne yow li Modou Lo li li at yëpp xamee Modou Lo mooy mooy épercule yi muy croisé laaw yi nga xam si ni rafaal yi nga xam Touba Dakar. épercule kay épercule kay euh, bu ñuy wax épercule mais mais mais tafaati na ci mën épercule tafaatin moo ci mën ku mu kor bu la dóoree nga wàcc moo tax balaa ngay bëreek moom di nga dem takk ay loxoom ba du la mën a dóor mais kum ci korose bu la dóoree nga wàcc man maa la wax lii tafaatin moom. épercule tafaatin moo ci mën ci làmb ji mais li ma lay wax nii épercule boobu ngay wax noonu Ama bale dafa boole ñett yëpp mais bu dee dóor laa lay wax de fi mu nekk nii mais bu fekkee moom bëre la moom Modou Lo moom macha allah kenn mënu ko ci. léegi sa combat bi séenu nga ci dóor mu daanu ñoom ñaar entre Lo Ama. moo tax ma ne la bu ñu xeexee bu ñu xeexee yuuxu dina dina dina jub fu ko jógewul man maa la wax te yow lu ma la wax danga koy gis lu ma la wax. mooy Ama Baldé Modou Lô nga ne nga ne nga ne dóor mu daanu mën na ci am. bu baax bu ñu xeexee mais di nga gis ku wàcc te li may wax nii bu bu ñu xeexee di nga ñëwaat fii nga ne ma damay confirmer waat comme ni nga defaat tey man maa la wax li bu ñu xeexee di nga gis ku nu ku dóor mu wàcc si ñoom ñaar mais faveur bi laa la wax nii Ama Baldé laa ko jox ci xeex bi mais ci bëre yi Modou Lô laa ko jox. bu ñu xeexoon yow ama nga gën a gis mu dóor mu waaj mu daan. mën na ko dóor mu wàcc lu leer laa lay wax nii man maa la wax loolu fii parce que dama xool ni muy dóore te ñun tamit yoruñu écurie nii rek sport de combat dañ ko def man mii di wax ak yow diplôme force spéciale laa yor kon xam naa li may wax bu baax xam nga ne wax man la dóor yi muy dóor euh, Malick Niang dañ ni dafa mën a dóor mais dóor yi muy dóor xeexu mbedd la day sànni ay kurpañ rek. moo tax bi muy xeex ak Ama Ama dóor ko dóor boobu sax moom dafa bett ñëpp Ama Baldé dóor Malick Niang mu wàcc ñëpp la bett parce que taxawaay yi ñoo bokkul xeex bi ñoo bokkul kii day dóor mën na dal du def benn impact mais Ama bu la dóoree bu la dalee da ngay wàcc loolu mooy différence ci xeex bi. xam nga koo ragal dafa mel ni Omar daal man xàmmeetu ma la affaire bi da nga li ma lay wax kay mooy li ma la wax. mooy euh, Ama Balde Ama Balde bu xeexee ak Modou man kay li ma la dafa leer dama ne Ama Balde bu xeexee ak Modou avantage bi ci xeex bi Ama Balde moom am avantage ci xeex mais bu ñu bëree man mootloo laa jox faveur ci ci ci bi. gis ne ñu gis ne ñu gis ne Modou Lo tey euh, dafa man combat bu nga xam si ni mooy combat mën na combat bu gaaw mais dafa man combat bu diire Modou Lo en général combat mi diire yëpp donc moom moo mujj reporté. Ama Baldé ñu gis ne euh, ñaari combat yi nga xam ne moom la ñàkk muy diggante guy gi ak nees bu combat bi diiree day ñàkk tey combat bi est-ce que est-ce que ci combat bi nii séntu nga ci combat bi yàgg euh, wala combat bi gaaw. waa combat bi nag euh, mën na bañ a yàgg waaw mën na bañ a yàgg bu fekkee Ama ñëw na parce que xam naa ni Modou du dem day xaar te lii ma lay wax nii na nga ko bind Modou Lo mook Ama Baldé mootloo ni mu def Eumeu Sène lay def day taxaw xaar ko parce que Ama Baldé déedéet risque la Modou ñëw daw jël Ama Baldé mais risque la de man du ma ko xelal loolu mais xam naa ne moom Ama Baldé dina ñëw te Modou dina ko xaar te buy ñëw ci xeex lay ñëwee Ama buy song Modou du ñëw pour bëre day ñëw pour xeex ak moom te bu ñu xeexee su Modou Lo xeexee bërewul amaa mën naa am avantage man maa la wax loolu fii. combat bi séenu ko ci mel ni cong. Hmm? séenu ko ci mel ni cong mu jeex. benn song rek mu jeex. noo mënul loolu moom xalaatuma ko comme ñuy ñëw rek songante combat bi jeex noo loolu xalaatuma ko dinañ bëre moom dinañ bëri dinañ xeex. dañoo gis ne Ama bu at wàccee loxoom rek ak bii ak si ko adversaire am benn lay doon. waaw léegi nag xam nga danga nga ni buy wàccee loxoom xam nga day ñëw bu wàccee loxoom rek day song. mais Modou Lo tamit am na ay am na ay arrêt am na nu muy téye mbër loolu def Eumeu Sène xam na ni Modou Lo dina dina xam ni Ama Baldé lu mu yàgg yàgg yàgg Ama Baldé day ñëw te bu deful ndànk Ama balde aussi buy buy songu bu mu songu songu gumba buy songu nag na observer na xool bu baax li muy songu ndax dina ko atteindre dina jàpp wala du jàpp. mais bu fekkee dafa ñëw rek song nii euh, song gumba na ma si yàlla baal si tur bi ah bu boobaa euh, tamit dóor bi tamit euh, li li dal Eumeu Sène mën na ko dal te loolu moom ñaanal luñ ko waa Pikine waat waaw man nag bokkuma ma Pikine bokk ma parcelle damay def sama analyse rek mais xam naa ni daal combat bi bu amee xeex avantage u Ama Baldé la bu ñu bëree avantage u Modou loolu moom xam naa si loolu ndax Modou dama gis ni muy bëree gis amaa tamit ni muy xeexee moo tax ma wax loolu mais nekkul dama ci ànd ak kenn parce que ñun ñëpp ñoo bokk làmb ku nekk day. bale ci làmb ki mu fi dóor mu daan rek benn Malick ñaa lañ ci mën a wax ah, ak yu mel noonu ñu gis ne Modou Lo tey comme ni nga jëlee xeex bi ba tey foofu laay taxaw rek li tax nga jël xeex man jox ko Ama Baldé laa xamul ba tey ah, parce que boo xoolee euh, Modou Lo dóor na fi lees deux mu daanu ah, dóor fi kayre mu daanu Ah, dóor fi Eumeu seen mu mu nelaw ak yeneen champion yoo xam si nii tey bu ñu jëlee coup Modou Lô xam na ne am na am na ñoo xam ne jël coup Modou sax moo tax seen làmb yàqu. waaw foofu laa lay wax xam nga Eumeu Sène ni muy songe ni muy songee Modou moo tax mu jël coup boobu yow boo xoolee làmb ji nga xam ne Eumeu Sène song bi mu song noonu loolu song boobu songul songul pour jàpp songul pour dóor dafa ñëw rek dal ci kawam noonu moo tax mu jël coup boobu. moo tax ma ne Ama buy ñëw moom buy ñëw di song Modou na moytu loolu na xool ba xam ne war na dem mu dem xam nga dem dañ koy kii nekkul nii da nga war a gis waa ji taxaw rek nga nga jëpp jóg pour song te yaakaar naa ne Ama Baldé yàgg na bëre du def loolu ah, mais song bi song song bi ëmma seen songu Modou Lo ba Modou wàcce ko moom song boobu nekkul song boo xam ni bu mën a indil dara ëmma seen la war woon dem sax booy song da ngay togg ba mu ñor nga dem dangay xool buntu ba nga gis buntu nga dugg mais buntu bu ubbeekuwul yow nga dugg mais bu buntu bi bu bu bu frappé sa kaw yaw yaa ko def waaw loolu moo loolu loolu mooy avant lool mooy problème bi. ñu sant la gërëm la bu baax a baax a baax xam naa du ñàkk yeneen combat yi nga xam ne mi ngi suñu kanam Balla Gaye Bombardier Tapha Tine Boy Niang Ah, Eumeu Sène la de Guiers ah, acte 3 bëri na ak yeneen champion ko ci mel ni ñoom Garga 2 Mama Lamine bëri na ay double moteur Quench bëri na ay champion yu bëri yoo xam si nii ah, di wax fay Faye production décor seen combat bi nga xam si nii moo jëm si diggante Kara Doole ak Mama Yaa bu bu tëngeej muy muy Faye production di ko nuy de passage mais di nuyuwaat encore une fois Fall bu caatu yaraax di ko jaajëfal bu baax a baax a baax waaye di jaajëfal Yaxya ah Yaxya borom Kër Mbay Fall borom Kër Mbay Fall moom ambassadeur SBT Média waaye du nuyu nag Def Live borom moom it day safa SBT Média di siyaar ñëpp ñoo xam si dañuy safa SBT Média waaye rawat na ñi nga xam si ne nag ñoom SBT Média lijjantiwul SBT Média lijjantiwul dara sama jëmm ju xeebu ji la ñuy safa muy maas ma leen di jaajëfal baax a baax di nuyu nag waa làmb yëpp ah, di siyaar amateurs yi di nuyu promoteurs yi ah, di nuyu CNC di nuyu ñëpp mais président aman ñu li ñu jël sa wax li ñu jël sa temps bëri na macha allah ñu fekk la bërëb bi ngay liggéey ah, ñu bàyyi la nga sant gërëm ñi nga xam si ni tey macha allah mënoo leen ñàkk bañ a waaw maas euh, euh, ngërëm bi dama koy commencer ci yow maa ngi lay remercier bu baax a baax ci déplacement bi nga def ñëw Tëngéej euh, maa ngi la si gërëm bu baax a baax a baax euh, di gërëm aussi sama waa waa Tëngéej gërëm aussi sama waa écurie muy écurie Daaru Gëm sa bopp bi nga xam ni euh, yàlla dafa def ma nekk président bi depuis 2016 ba léegi loolu dama koy sant yàlla nag di ko di ko remercier aussi ñi nga xam ni ñoo ŋànk écurie bi di remercier aussi waa Daaru Rahman bi nga xam ni fi laa dëkk nekk tamit ma nekk fi aussi président équipe nekk aussi président ASC bi ASC xandaalu aussi maay président bi euh, loolu aussi du dama leen a gën mais yàlla moo ko def euh, ma leen siy remercier ñoom ñëpp ci confiance bi ñu am ci man euh, di ma jiital ci yooyu maa ngi leen siy remercier bu baax remercier aussi suma fi may fi ma fekk ma fiy liggéey maa ngi leen di remercier waa koñ bi yëpp comme ñoom Marie ñoom it Rama nuyu tamit suma soxna Mariama Dia di nuyu tamit képp koo xam ne rek. yaa ngi euh, seetaan euh, sbd TV ñi ngi lay euh, remercier bu baax a baax di la wax nag jàpp ko ndax ñii suñuy partenaire lañ suñuy xarit lañ te ñi ngi liggéey liggéey bu mucc ayib boo xam ni vraiment sénégalais yëpp yëpp yëpp war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax fu nit nekk rek ñi ngi lay seeti di la laaj di la di la di la gëstu di kii di def liggéey bu mucc ayib kon dama bëgg rek sénégalais yëpp ak surtout ahlu làmb ñëpp nañ leen jàppale ji leen seetaan di euh, def seen i vie bu baax a baax a baax ndax loolu tamit euh, daf siy baax waaw maa ngi lay remercier bu baax a baax di di nuyu aussi waa ARERS maa leen di nuyu muy euh, association des écoles et écuries de lutte bi nga xam ne sunu président mooy Malick Ngingue maa ngi koy nuyu de passage di nuyu tamit suma père Djili Wade père Bourkhane maa ngi koy nuyu bu baax aussi manager la ñu koy nuyu bu baax. di nuyu tamit per Jaxate suma per la euh, maa ngi koy nuyu bu baax euh, per Baytir mooy président écurie Yoff moom lañ falaat pour quatre ans ñu ngi koy euh, encore di ko di ko féliciter ci loolu aussi bu baax a baax di nuyu tamit suma frair suma doomu ndey muy góor gi siis nekk président kaay baax ndax xam nga ni ngemb door bi tëngëj la ñëw xam nga loolu ñun waa waa kaay baax ñoo ko jël te kaay baax ak écurie daaru gëm sa bopp benn la waaw kon loolu aussi ndam la boo xam ne dafa ñëw tëngëj ñu si remercier waa Baax yëpp yëpp yëpp di remercier président Gorgui Ciss muy Gorgui production nga xam ne moom aussi am na làmb yu mu taxawal ñu ngi koy euh, nuyu de passage nuyu Modou Fall paate président écurie Mor Fadam aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw SBT Média la teg leen seen baaraam foofu ak beneen champion ak beneen invité ak beneen ndaanaan ci SBT dégg waxtaan fi mu toll dégg ngeen wax ci problème seen na euh, waaye dégg li nga xam si moom la wax ci euh, président CNG bu bees bi li xaar ci moom euh, muy ki nga xam si moom mooy suñu papa Bira Sène di ko ñaanal ak équipe bi mu àndal yëpp suñu borom amee ndam ñëpp ay am ndam macha allah di jaajëfalaat bu baax a baax le ministre sport Matar Ba waaye nag di waxit stade bi nga xam si ni mooy cooli arène nationale bi ah, waa làmb ñi ngi sàkk ko ñu doxalal ko seen bopp ndax boobu ba léegi tabax nañ ko pour làmb waaye ba léegi waa làmb gisaguñ seen bopp ñu jël caabi jox ñi nga xam si ni ñoom ñooy waa làmb ñu doxalal ko seen bopp ndax bu fekkee stade dañ ko waa pour lamb dinañ ko jox waa lamb di jaajëfal ñëpp den jox dig dajee ak beneen invité ci SBT Média jërë ngeen jëf merci beaucoup